dal leen ak jàmm wàllu politique tàggat yaram ak yeneen xibaar moo gën a fës yéen kaay génn tey yi nii Sud Quotidien yi ñu xamal ne liste départementale bi askan fii ci Ndakaaru kat moom mu jul jàll loolu nag direction générale des élections nee na kat loolu munta am démb nag lañ ko xamle bi ñu joxe notification bi ki nga xam ne kat moo nekk Déthié Fall di mandataire national bi direction générale des élections bi nga xam ne kat da doon amal contrôle juridique ci wàllu liste yi nag moo xam ne kat Yewwi Askan Wi nag sàmmoontewul ak ne kat di la Soleil moo ko bind yemuñ foofu nee na kat ñi ànd ak Déthié Fall fi mu toll nii dara jeexagul ci ñoom ndaxte kat yëf yi mën nañ koo yóbbu nag ci wàllu conseil constitutionnel conseil constitutionnel boobu sax am na ñetti fan ngir rek daal di leen di gindi ba tey ci wàll woowu suñu naataangoo yi di fësal ne kii jiite parti bi di Pastef di Ousmane Sonko moom dafa sax lu dem na ci ab déclaration de presse ngir rek setal wecc kii di Khalifa Sall Déthié Fall ak tamit kii di Saliou Sarr nga xam ne kat ñoom lañ duut baaraamu tuuma ci jafe-jafe yi nga xam ne que liste bi am na ko fii ci Ndakaaru suñu naataangoo yi di Sud Quotidien di fësal ne mu set kenn ndaxte Khalifa Sall xalaatul mukk nag jaay li nga xam ne kat moom moo nekk nag list bi fii ci Ndakaaru ci ab conférence de presse bi nga xam ne amaloon ko démb Ousmane Sonko nag gindi askanu Sénégal ci li nga xam ne kat moom moo jëm ci wàllu dépôt liste ay tamit li xam ne kat moo jot mooy njëkkital gi ci wàllu département bu Dakar Ousmane Sonko indi ay leeral ci waxtaan xam ne seq na ci wàllu téléphone bi ak Barthélemy Diaz ak tamit kii di Khalifa Sall waaye tamit ak moom loolu l'observateur moo ko bind Ousmane Sonko set wecc loolu moo gën dal ci ñi nga xam ne kat ñooñu ñaxtu te bokkoon ci Yewwi Askan Wi ci yéen kaay bi ba tey moom kat nee na li ñuy waxal xalifa Sall dara amu ci ndaxte kat xam na ko Khalifa saal xalaatul mukk nag jaay li nga xam ne kat moo nekk liste bi fii ci biir Ndakaaru te liste boobu kat leer ba leer Ousmane Sonko nee na dara mënul tee nag ba du bokk ci élection yi ci yéen kaay bi libération sax moom Ousmane Sonko mu ngi au Sénégal yëpp ñu jëkk bañ élection am fii ci Ndakaar te Yewwi Askan du ci bokk ba tey ci yéen kaay boobu di libération kii nekk nag te de liste nationale bu Bokk Yaakaar moom di Aminata moom tontu kii di Ousmane Sonko ci ab point de presse boo xam ne def na ko démb Aminata Touré moom jàpp ne kat Ousmane Sonko moom nag seetal na direction générale des élections Mimi Touré moom dafa song yeeyu askan wi weddi nag li nga xam ne kat la ñu wax di duut baaraamu tuuma direction générale des élections loolu mu ngi ko fasal ci yéen kaab di l'observateur Aminata Touré moom jàpp ne kat jafe-jafe yëpp nag du kenn ku dul ñi nga xam ne kat ñu jiite yéen askan wi ndaxte kat seen am

yaakaar ci moom yëpp dafay yàkkeeku waaye su fekkee rek dañ ko seetal moom dina dina jar a bàyyi xel loolu jëm ci wàllu politique ba tey ci wàllu woowu yéeni bi di le vrai journal samp ab ndax Barthélémy Dias dañ koy jàpp ndax tamit dañ koy bàyyi loolu mu gën a fës yéeni kaay bi di le vrai journal mbirum Idrissa Gana Gueye ba léegi coow lu jeexagul pënd bi wureegul Sénégal na jóg taxaw temm ànd ak kii di Idrissa Gana Gueye mi nekk champion d'Afrique nekk Sud Quotidien di fësal ne Sénégal yëpp fi mu sol maillot ñu ci nag kii a bàyyi Idrissa Gana Gueye mu respecté fës ci yéene kaay bi di la Soleil Macky Sall moom jàppale Idrissa Gana Gueye loolu nag moo gën fës ci yéene kaay bi di la Record ci ba ci yéene kaay mi ko ci ay kàddu dañoo respecté li nga xam ne kat muy gëm-gëmu Idrissa Gana Gueye Sénégal yëpp jóg taxaw temm jàppale Idrissa Gana Gueye loolu mu gën a fës yéene kaay bi di stade Ousmane Sonko sax ci ñooñu la bokk ki jiite parti Pastef nekk tamit ki jiite opposition moom nee kat Sénégal yi mu taxaw ci ginnaaw Idrissa Gana Gueye loolu mu ko rosal ci yéene kaay bi di l'observateur ak tamit stade l'observateur ba tey di fësal ne Idrissa Gana Gueye kat ñeenti fan sax xamaloon na ko nag ki ñi nga xam ne kat ñu ay kilifaam ca Paris Saint-Germain waaye teewul nag dañ koo yóbboon fële ca loolu yéen kaay bi kii nga xam ne nag spécialiste en droit du sport nekk tam avocat au barreau de Marseille di maître Moustapha Camara indi ci ay leeral nee na kat li wax ci daal jaru ko ba tey ci wàllu football ginnaaw amee xët-xët ci diggante Njàmbur ak Jaraaf juróomi fan ci weeru mai bii ñu nekk nii commission discipline bu ligue pro bi nag génne na ay daan Njàmbur de Louga nag dafay football match am ci terrain neutre waaye tamit ci huis clos maanaam La politique, le sport et d'autres sujets sont développés dans les journaux ce mercredi. Selon nos confrères de Sud Quotidien, la liste départementale de Yévi Askanui à Dakar a été finalement déclarée irrecevable par la Direction générale des élections. C'est hier mardi que la liste qui n'en finissait pas de susciter la polémique a reçu la notification de son rejet auprès du mandataire de la coalition Yévi Askanui. La Direction générale des élections,

Ousmane Sonko est formel, Khalifa Sall est blanc comme neige. Il n'y a aucun complot venant de lui qui vise à saborder la coalition. Selon le leader du parti PASTEF, Macky Sall n'a acheté aucun membre de la coalition Yewwi Askan Wi pour ce qui est de la liste rejetée de la coalition à Dakar. En conférence de presse hier, Ousmane a tenu à lever les équivoques qui ont accompagné le dépôt et l'invalidation de la liste départementale de Yewwi à Dakar. Ousmane Sonko livre sa part de vérité sur la liste à Dakar, révèle la conversation téléphonique entre Barthélémy Diaz, Khalifa Sall et lui, Ousmane Sonko attaque la direction générale des élections, défend Khalifa Sall et charge les frustrés. Dans le même journal, Ousmane Sonko déclare, je cite, Tout ce qu'on reproche à Khalifa Sall est faux. Selon lui, la liste est recevable et sera reçue. Ousmane Sonko prend la main, renchérit l'info. Dans le quotidien Libération, Ousmane Sonko déclare que les Sénégalais doivent refuser une élection sans Yewi Askanui à Dakar. Dans le même journal, la tête national de la coalition Benno Bokk Yakaar apporte la réplique à Ousmane Sonko entouré de plusieurs responsables Aminata Touré déclare que Sonko a reconnu que les accusations contre la direction générale des élections sont fausses Mimi Touré engage la bataille contre la manipulation mais Yewwi devant ses responsabilités et appelle à une bataille d'idées écrivent nos confrères du quotidien L'Observateur selon Aminata Touré les leaders de Yewwi

Pour Barthélémy Diaz, c'est le titre qui barre la une du quotidien La Tribune. Selon nos confrères, si le juge suit le réquisitoire du procureur, Barthélémy Diaz pourrait perdre son fauteuil de maire de Dakar. Barthélémy Diaz acquitte ou double, écrivent nos confrères du quotidien Critique qui précise qu'une fatale condamnation, c'est tout l'espoir suscité par le maire de Dakar qui risque de s'envoler. Mais une fois lavé des grandes accusations de meurtre, Barthélémy pourrait devenir un monstre politique. Son avenir politique suspendu au verdict du juge d'appel, Barthélémy Diaz sera-t-il ligoté ou libéré S'interroge nos confrères du quotidien Le Vrai Journal. Homophobie dans le sport, le Sénégal se solidarise avec le footballeur international champion d'Afrique, le milieu du Paris Saint-Germain. Selon Sud Quotidien, Idrissa Gana Gueye peut compter sur un soutien de taille suite à la polémique qui a suivi la révélation de son refus de jouer contre Montpellier et d'arborer le flocage arc-en-ciel en soutien à la communauté LGBT. Il s'agit du président de la République Macky Ce dernier, comme beaucoup Le Soleil. Macky Sall soutient Gana Il déclare dans le quotidien record que ses convictions religieuses doivent être respectées. Gana une tempête, les Sénégalais en bouclier. C'est le titre qui barre la ligne du quotidien sportif Stade. Ousmane Sonko, patron du parti PASTEF et leader de l'opposition, apporte son soutien à Idrissa Gana Selon Sud Quotidien, pour maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, Gana Gueye est prévenu les dirigeants du club 96 heures avant le match qu'il ne portera pas le maillot aux couleurs arc en à être du voyage, ajoute nos confrères. Dans le même journal, le spécialiste en droit du de Marseille, Mustapha Kamara, apporte son Elle déclare que rien ne justifie ce débat. Toujours en football, après les incidents qui ont émaillé la rencontre entre le Ndjambour et le Djihad de le mai dernier, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, après examen des rapports, a décidé que le club lougatois jouera ses prochains matchs sur un terrain neutre et à huis clos, selon nos confrères du quotidien sportif Record. Le Ndjambour de Louga, sanctionné, ajoute Stade.